يا مكرم ضيفي جارا كان وزارا يا مايا أخادي من قبل أزارا وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغني بكي تريب أغني سنو كات دي أغني دي نيوم أكو نيوم دي نك دي نك كل نيب كي كور كي ندوكو دي نيان يالا ويوم بلن نو دي نو كي ديگل ko ñaanit li mu ci liggéey mu defal na ko di ko ñaanit mu delloo si ko ay yoon yoon yoon bu ñuy nekk ci bëree bëri ko woon noonu mu mel ne ku naan dara loolu moo ko doon yàq te nag xam naa ne xawma léegi waaye am na jamono bari woon na jigéen ñoo xam ne dañuy dañuy def rek mel ne dañoo ragal ne bu ñu ne seen lool seen koor yàq loolu kon ñu xam ne du yàq koor te tiggoo bi itam lu rafetlu rafetlu lu ak yiw gis-gis bi fa toll sànq ak waa ci biir nit lu ak yiw kon ku woor mën nay wane loolu na ko daan allah. jërëjëf sëriñ Cheikh pëndub suuf la moo xam pëndub leneen xeetu pënd bu ne rek bu nit nekkee foo am pënd pënd dugg ci gémmiñam bu fekkee dafa woor lu yàq tooram kon lépp loo xam ne dugg ci gémmiñam rek naaw ba dugg ci rek euh, jubluwu ko te itam mënu koo moytu loola du yàq du yàq tooram kii moom day laaj mu ne cee waxtaan wa muy waxtaan ak moom waxtaan bu mën a bu baaxoo bu baaxoo àgg àggale nit foofa la bu dee waxtaan mu mel noonu te moom mu xamoon ko it xamoon ne waxtaan mu mel noonu mën na ko àggale foofa boobaa bu ko defee kooram day yàq kooram day yàq muy kon lépp loo xam ne xalaat la walla wax walla xool lu ci nit def rek te defe ko anam ko mën na koo àggale ci am lu génne ci moom te mu xamoon koy boppam it booba kooram day yàq day fay bu fekkoon ne demewut noonu nag mooy du waxtaan bu baaxoo àggale nit foofa waaye yàlla dogal booba rek mu am génnee ak génnam li tax mu yàq koor mooy lu ko baaxoo génne da koo génn si bu fekkee génnewul ci lu ko baaxoo génne du yàq koor kon waxtaan bi bu demee noonu ci anam koo xam ne moom xam na ne baaxoon naa àggale foofu moom bopp moom baaxoon na ko àggale foofu kon bu ko defee waaye day fay Aadama bu ko ci def tànn lu muy def ak mu dul def ak lu muy def jamono ji ak euh, lu mu dul def jamono ji daa war di euh, góorgóorlu ci def lépp daa war di góorgóorlu ci def lépp julli moom day ànd ak moom ci waxtu yëpp ci jamono yëpp kon daa war di julli ci waxtu yëpp ci jamono yëpp koor daa am waxtu bi ñëw bu waxtu ñëwee mu woor bu jàllee moo xam ne waxtu bi moom jàll na ñemee bañ a julli rek moo scénario boobu mën nañ koy mën nañoo am scénario boobu sañ xëy na sañ nañ koy itam ndax aada moom ginnaaw kuy kii ñaan moom saa bu ko neexee ñaan mën naa bay ñaan ci waxtu ko bu ko neexee aada daal lay doon bu fekkee am na waaye du loo xam ne moom diin dajee tëral dara naan waxtu sàngam weer sàngam wala waxtu sàngam des ci même sëy wala gënu ci même sëy wala sëy daal jamono ju ne waxtu wala mënees na ko mënees na koo takk na caa maye euh, foo ma ci waxtu dañoo leen itam waxtu ci taamu ci wàllu nit ñi mën nañu doxal doxal ci seede aada lu leen baax boobaa du baax ndax boobaa bor bi moo ñëw yokk bi bu dee lële nag njëkk ci boppam moo doonoon lool bu dee li ñuy laata seet ñu la xam ne kuy fay ci saa si lii mooy njëkk yi kuy fay ca kanam lii mooy njëkk yi boobaa dana dagan ñaar yooyu lu ci lu ci jënde rek ci ñaar ba nit waxaale ak moom ba juboo ne ko nag mënumaa fay lay bi mu ne amul lu mu ko dundalee kon moom doom ji moo koy dundal moo xam am na soxna moo xam amul soxna damaa foogoon ne sax da cee jublu ku nekk ak soxnaam ak yaayam dépense bi muy joxe ndax mën na koy jox soxnaam di ko bañ a jox yaayam ndax loolu moom dañ koy jàmbat léeg-léeg ci kër yi day indi ay ay réeroo léeg-léeg ci kër yi foog naa loolu la jublu xëy na bu dee loolu loolu moom aw aw doxin la rek boo xam ne si nag moo koy togg lu jëpp bu ko toggalul boppam itam moo koy taxaw yaay bi daal moom wax dëgg yàlla taxawul togg gi yaay bi du ko taxaw soxna see ko defal boppam mbaa mu di ko taxaw kii togg mbaa muy taxaw nag la ñuy joxe moom ci moom lay mujj ci moom lay mujj ñu jox ko ko mu waj jaar fenn ak ñu jaare ko ci yaay ji mu ñëwaat ci moom benn li am solo mooy nañ déggoo rek déggoo am ci seen biir léeg-léeg ñàkk déggoo rek mooy waral euh, yaay yi di jàmbat léeg-léeg bu fekkee seen doom day jox soxnaam dépense xëy na am na ñoo xam dañ ko tàmmoon mën naa am bu njëkk euh, dépense daan jaar ci seen loxo war a dem ci soxna si seen doom ñëwee defut loola ñu jàppale ko ne dalee na dalee na xañ seen àq wala daal du doon lu ñuy jàmbat bu dee ci wàll boobu la moom lu muy liggéenti la rek waaye lu mu ci def mbirum boppam la mbirum boppam la mën na koo jox soxna si mën na koo jox yaay waaye lu mën te mooy toog taxaw kii toog itam kon lu mën te xew ci soxna si lay mujj buñ ak déggoo daal na fexe ba mu am seen biir ñoom ñëpp rek Euh, ba bu joxee soxnaam yaayam di ca wax dara bu joxee yaayam soxnaam di ca dara léegi-léegi mën nañoo waaye rek ak ñàkk ñàkk a koy waral rek mën naa am léeg-léeg soxna di jàmbat bu fekkee dañu jox yaay ji mu jàpp ne yaay ji da ciy wàññi dara ndax yaay yi ñu yërëm seen nañoo yërëm seen doom ba mu ëpp lii na bëgg ba wàññi loolu lépp rek mooy ak déggoo mu ak déggoo daal na man mënta xew la lu mënta def moom jurum boppam daal moo koy lijjanti bu juree ñàkk a déggoo moo koy lijjanti bu fekkee bu jur ñàkk a déggoo mën na ko def foog naa ne loolu la war a jur waaye moom dundal yaayam moom bu amee soxna ak mu soxna moom bu fekkee yaayam amatul dundale boppam te borom kër yaayam itam amatul ko dundale kon moom lay wax sëñ dee gone mooy ku nekk muskàllaf moom yàlla du ko bindal bàkkaar kon moom du am bàkkaar mën na def nag lu yàlla tere lu yàlla tere ñëpp boobaa du ci am bàkkaar mooy du ci am du ko ci daan waaye nag war nañ ko ci mën nañ ko caa yar mën nañ koo yar ndax li yàlla tere ku ko def lu ci bari da ci loraale ñeneen bari da ciy loraale ñeneen yàlla moom ci yërmandeem ak matam mën na ko caa bañ a topp dara waaye dañ ko seetaan nag muy lor nit ñi dañ ko seetaan muy def luy lor nit ñi ba lu mu tuut tuut tuut tuut duñ ne amul bàkkaar rek ba tax ñu koy bàyyi muy def lu ko neex ko bu aajoo ñu yar ko ñu yar ñu teg ko ak yar mooy ñu teg ko ay ay yoo xam ne noo ko koy tegal suñu bopp noonu waaye yàlla moom ko tegi daal kon mooy yàlla da ko bindal bàkkaar waaye nit ñi nag ñoom sañ nañ ko jubbanti jubbanti ga euh, ngir lor jay juddoo ca la muy def ñu fànq ko ba du lor ba keneen suñu kii moom day laaj mu ne ndax koo xam ne dafa dugg ci lislaam ci bëccëg bu weeru ko ndax woor dina ko war wala déet ci dugg ci lislaam ci bëccëgu weeru koor la topp ca bis booba moom war na ko woor la topp ca bis booba waaye mu duggee moom bu dee ngir ñi dañ naan woor ko du war bu dee woor ko du war mu war ci ñoom moom bokkutoon ci ñi mu ci ñoom kon nag war ko waru ko ginnaaw bokkutoon ci ñi mu ci ñoom itam fay ko du ko war loolu da ngeen bi di war waaye dañ naan nag sopp nañ sopp nañ ko nag sopp nañ li des ci bëccëg boobu mu bañ cee lekk bañ naan bañ def li ñuy teree woor mooy li ñu jàpp sopp nañ mu jàpp li des ci bëccëg boobu ay sopp bu ñu sopp mooy def ko la jàpp ne moo gën waaye bu ko defut itam daa ko fekk sopp nañu jàpp la des ci bëccëg ba sopp nañu itam bu weeru jàllee mu fay bis boobu waaye lépp sopp rek lañ lañ ko def ci ngeen am na ci yeneen borom xam-xam yi ñu wax ne moom daa war a woor sopp mu jàpp lu des ci bëccëg bi sopp itam bu weeru jàllee mu fay waaye dëgg-dëgg doonut lu ko war ndax ba ñuy digle bis boobu woor bis boobu bañ koy digle mooy ba fajar di jot te boobu fekkul mu nekk ab jullit kon boobu loolu tey ñu ngi boobu sëñ Cheikh. jërëjëf kii moom day laaj mu ne ndax dagal na ci ko ànd ak limaan moom muy jàng te fekk imaam baa ngi jàng jàng dañ cee yóbbu jàng alquran fii liman di jàngi alquran muy faatiha ak lam teg ndax ci topp ci ginnaawam sañ naa jàng alquran moom itam bu dee jàng ci kaw moom ilimaan nag dañuy sib dañuy sib ki topp ci moom di jàng moo xam ci kaw la jàng moo xam ci suuf la jàng bu ilimaan di jàng ci kaw rek ki topp ci moom moom daa war a noppi bu ko dee dégg mu déglu ko bu ko mënee dégg mu déglu ko bu ko mënta dégg itam mu noppi bu dee ci kaw lay jàng bu jàngee rek dañ koy sib maanaam di jàng ci kaw ba noppi ñu toog di jàng dañ koy sib buy jàng ci suuf nag dañuy sopp ñu toog ci di jàng loolu mooy mooy ngër ñi yeneen ngër wax nañ leneen waaye ngër ñoom noonu lañ koy waxante ci islaam yu dëgër gétt yi yëkkati ko ko ci dugg ci biir ci biiram moo xam mu jaar ci bakkan yi maa biir bi bu demewut noonu mooy du yàq koor du yàq koor te foog naa xëy na ku war ko def loolu loolu daal bu fekkee noonu du yàq koor bu dee moom parfum la bu def ko ci yaramam wala ci yére du koor bu dee cuuraay la doon daal fee itam te tënk mooy ponk ci ponk lislaam yi ponk lislaam yi mooy juróom yi nu xam mooy nit ki wax ci làmmiñam wala mu wax canam wax mm, canam mën a waxe daal mu feeñal ca ne gëm na ne yàlla rekk yeyoo jaamu gëm na ne seydina muhammad sallallahu alayhi itam mooy ndawam mooy mu seere loolu loolu ponk bu njëkk loolu boobu dëgg gëm gëm moom ci fal bi lay nekk ak bu nekkee ci fal ba noppi nag da koo war a euh, jëmmal ba nit ñi man koo jàppee ak jullit ndax xol bi moom yàlla ko xam nit ñi nag dañuy am seere ci seere la ñuy sukkandiku ba mën koo ba mën a xam bu ñu koy boole bu andee seere si wane ne am jullit la nu koo boole ci jullit kon loolu mooy ponk bu njëkk julli moo ci topp ñu ko doon waxee asaka ak wóoreel koor ak aj lu ci nekk ak sàkkam na kon juróomi ponk yooyu ku ci am bu mu bàyyi te ngànt waralu ko dañ naan lu tax mu bàyyi ko bàyyi mooy bañ koo def lu tax bañ koo def bañ koo def te fekk sàrt yee daje ci moom sàrt yee tax mu war nit dajale ci moom mu bañ koo def dañuy xool lu teye mu def ko ndax dafa jàpp ne daa bokkul ci lislaam wala nangu la ne ci lislaam la bokk daal waaye càgganteem rek moo tee mu def ko wala dox bakkanam wala réeram wala yeneen bu dee dafa wax ne daa bokkul ci lislaam kon moom daa nekk bu ñu ab jullit dañuy wax dañ daa nekk bu ñu jullit moom dafa génn ci lislaam ndax ponk yooyu naka jekk ñëpp maasa nañ ci dëppoo lay ñooy ponk ci lislaam loolu lañ naan ku ko weddi mooy daa weddi loolu ku ne xam na ne ci diine la bokk ku ne xam na ne ci diine la bokk xam nga ajuwut ci am njàng ak dara ku nekk da koo xam ku weddi loola moom naan kon daa bokkatul ci diine ji mooy daal nangootul diine ji lam dëgg-dëgg ku bañ a def lenn ci yooyu te bañ ngaa def jàppale bokkul ci lislaam a kon moom moom ci bopp moo génn ci lislaam bu fekkee nag waxut ne bokkul ci lislaam moo xam lay bu man layaat rek kon dañ naan kon duñu wax ne génn na ci lislaam waaye nag def bàkkaar bu rëy rëy rëy boo xam ne waruñ koo seetaan noonu rek waruñ la rek dafa bàkkaar bu rëy rëy waaye ko fi bàyyi itam nag muy fooyee diine ji ko woyofal ci kanam nit ba tax dañ koy teg euh, ab yàlla bu diis bu fekkee na wuta dellu ginnaaw te sawru siraat gis na lu sëñ bi lim ci leerale ci bañ a julli bu fekkee weddi koo tax weddi ko mooy ne daa bokkul ci lislaam moom day jàppale ko ak jullit te àtte bi tam mooy ñu rey ko bu dee nag weddiwu ko waaye defu ko ñu def loo ko def loo ko defu ko it ba tey dañ koy rey gis nga kon moom it daan lu métti lañ koy teg lu tey ñu jàppe ko jullit nag buñ ko rey ba noppi it euh, bu faatu ñuy jëflante moom lay jëflante ak moom loolu moo wax ci jullit loolu lañ mën a jàpp rek ci ci des itam gis nga seen naaw bat saxaaba yëpp sax laay wax ci fi yonent bi ñi bañoon a joxe asaka ne dañ ko doon joxeete ñooñu seen naaw bakk bi jiite woon jullit ñi da cee ànd ak saxaaba yëpp ñu xeex ak ñoom xeex ak ñoom xeex amee rek moom koy mooy rey ak reyante daal di am kon yooyu yi ku ci bàyyi lenn def na lu rëy rëy rëy digganteem yàlla waaye euh, man nañ ko jël rek ay daan itam bu fekkee ne dañuy àtte woon islaam dañ ko dee teg daan diis a diis bu dee weddee tax moom duñ ko jàppee te ëpp jullit nekk lu ëpp jullit moom nekk lu ëpp jullit bu fekkee nag weddiwu ko waaye bu ko deful rek kon daan diis lañ ko dee teg waaye nag te moom jàpp jàpp ko ëpp jullit suñu ci alxuraan kii moom day laaj mooy ndax dagal na ci ab jaaykat nit ñëw di jënd ci ko wuteegul la wax ak moom ba jubóog moom ba njaay mu dox mu dox ko wuti boobaa njaay ma du wér ndax dafa jaay lu mu amut te ku jaay lu mu amut du njaay ma du wér kon dàqante googu loolu moo ci jar a des bu dee moom day man euh, bëgg naa nangam mu ne comme man naa la ko jaay de daal te wuti ko ñëw jaay ko ko boobaa baax na ndax li ko jaay am na ko mbokk mi ñu day laaj mooy ndax maam la mooy buñ jiite ndax mën naa jàng fatiha ginnaaw bi maam bi jàngee fatiha ba noppi. lii dafa naan sorewut ak euh, laaj bu jiitu woon ren bi da ko jagleel fatiha bu dee ginnaaw nag mooy ilimaan day jàng ba daaneel mu door a jàng loolu lay firi bu dee ginnaaw loolu lay firi ginnaaw bi ilimaan jàngee ba noppi euh, bu dee ci ngir mi bu dee ci ngir moom li mu ko waxee bu ilimaan di wax ci suuf kon moom du xaar ba mu noppi xam du lay noppi suuf lay wax kon moom day jàngandoog moom sopp nañ mu jàngandoog moom bu dee day jàng ci kaw nag dañoo sib mu xam ne jàngandoog moom moo xam dafa bàyyi muy jàng ci ngir mi am na nag ci yeneen borom xam-xam ñoom ñu ko ñu wax noonu ñu wax ne bu dee ci kaw la bu ilimaan jàngee ba daaneel ci lay jéem a gaaw jàng moom faatiha wala sax ci biir faatiha ji sax diggante yi muy yi muy taxaw moom mu jéem cee dugal dara ci faatiha moom it wax dëgg loolu bu ko seetlu na xam ne xaw naa xaw naa doy daal ilimaan di jàng nga naan bu fu ñuy taxawee naa gaaw jàng tuuti bu taxawaatee ma jàng tuuti wax wax dëgg yàlla ci julli xaw naa doy foog naa ne kon ni ko ngeen ci daal mel na ne moo gën a moo gën a simple bu ilmaat bi wax ci suuf ngay jàng yow it buy jàng ci kaw nga noppi lu ci nekk li ma ko waxee woon yaay cëslaay yu dëgër lañ ko teg ñu wax leneen ndax teg nañ ko ci cëslaay waaye loolu na ne cëslaay yi moom ci wàll gi mën na ne cëslaay yi bu ngeen bi teg moo gën a moo gën a dëgër sincère kii moom day laaj mu ne ndax dagan na ci am jullit muy dem ci tefes géej gi ngir di fa jaay ànd ak mu xam ne sam foofu jaxasoo góor te seen awra bi bu mu ñu war a bi de xam naa moom da ko yemale ci tefes waaye loolu amul ci tefes yi rek amul ci fu ne fu ne lay am jaxasoo góor ak jigéen fu ne lay am nit ñi ñàkk mu seen awra ñi ne digal ko képp fu ne lay am moo tax kon du mbirum tefes rek du ne itam mbirum jaaykat la rek du ne jaaykat rek itam lañ daan bul dem fu mel noonu eh, wala jaaykat daal moo ci am jafe-jafe eh, li am solo mooy ab jullit béréb bu mu am soxla béréb bu mu am soxla te béréb ba am na fa lu yiw am fa lu yiwut mën na faa dem mën na faa dem jéem faa faj soxlaam te moytu kem kàttanam kem kàttanam bu mooy doo xool luñ ko tere waaye duñu wax ne béréb sàngam am na fa lu yiwut rek kon du ma dem bu kon nag lu yiwut kese fa am lu yiwut kese moo fa am ñaar yooyu bokkul am na fa lu yiwut bokkut ak lu yiwut kese fa bu dee lu yiwut kese fa am moom dafa dem loolu nag am na moom ci réew tubaab bi ci ay tefes walla ay gërëb yoo xam ne gërëb yooya ñu def yaramu neen rek ñoo fay dugg ñu def yaramu neen rek ñoo fay dugg baay ak yaay ak doom sax bu ñu àndee ñun ñëpp dañuy def yaramu leen dugg fa am na béréb yooyu moom ab jullit waru faa dugg moo xam day jaay moo xam jaayul waaye bu dee nag béréb boo xam ne moom ñëpp fay dem ñu yiw lañ fay dem ñu yiwati di fa dem te yow nga am fa soxla mën nga faa dem waaye boo fa demee na nga sa kem kàttan ba doo xool luñ luñ la tere nga xool loolu nag yëmul ci kuy jaay ak tefes waaye fu nekk la fu nekk mbiram yëpp la mbiram la ak yiwati di jaxasoo ak yiw ko yiw di jaxasoo ak yiw nag ku fa soxla mën na faa dal waaye kem kàttanam muy moytu moom luñ ko tere rek dina mu ne lan mooy àtte boo xam ne day tuur ndox de ni muy ame ci tuur ndox lay mën a amee ci leneen tam mooy ci yiy yàq jàpp rek yiy yàq jàpp am na ñooñ ak wéradi lay doon ak wéradi mooy tax ba duñ ko mën a téye duñ ko mën a téye. ba day génn ci lu seen coobare ci lu dul ñu cay man dal moo xam tuur ndox moo xam leneen la ku loolu dal ab àtte mooy dañ naan ko moom na def daal saa bu saa buy bëgg a julli saa buy bëgg a julli rek na jàpp saa buy bëgg a julli na jàpp biir njàpp biir bi muy jàppee ak diir bi muy jullee yépp lu fi mën di xew itam yoo la nekk ci bu ko yàqal dara loolee nga xam ne génn ci moom te mënu ci dara bu dee génn ci moom itam du yàq du ko yàqal dara kon saa bu julli jotee na bàyyi rek bay du jàpp woon ak toogaat lu mat fukki waaye na bay julli ji bu jàppee rek day daal mu jàpp daal dem boobu yépp nag lu fi mën di xew ko yàqal dara du ko yàqal dara saa ya, bu julli jotaatee itam mu jàppaat rek kon loolu lañ koy wax waaye duñ ne ko saa sa jàpp yàq koo na nga jàppaat ndax loolu du ko àttan du ko àttan ndax du mën a téye boppam ñii mën a téye seen bopp ñoom ñooy dem sàmm يا مكرم ضيفي جارا kana وزارا يا معي من قبل أزارا